ngeen déggee nag ñu naan mbir mi ñuy dund dafa doon loo xam ne dañ ko teg ci ak kanu Kaolack rawatina quartier bi ñuy wax Daaru Salaam mu janoo ak géej gi tefes gi tefesu Kaolack gi daggat nañ ko daggate ko jële fi ñëw di doole indi fi borom doole ak borom xaalis te loolu la ñu ñëw tey pour won leen ko parce que ñun mënuñu comprendre Kaolack amul benn yaakaar lu dul géejam gi

yéen waa Kaolack yéen a ko mun a waxal seen bopp ñun waa Kaolack parce que lu métti kenn rek métti na keneen gis nga yéen waa Daaru Salaam li leen di métti moo métti waa Saara Njugaare moo métti waa Medina Baye Kaolack yëpp ci seen bopp lii naka dina leen mbiru géej gi il faut ñu wax ci dinañ ci wax te duñu noppi bés bu yàlla sàkk ñu indil ay problème yoo xam ne kenn xamul lan la da ngay yeewu li la gën a naqadi ñu jëlee fi ki dëkk si dëkk bi judo fi ay maamam dëkk fi juddoo fi ñu dindi leen fëlang leen fële indi koo xam ne doxandeem la ci Kaolack dagal ko comportement boo xam ne xamuñu lan la gisuñu kon fan la ñu demal mu jëriñoo ko et suba boo demee foofu bu faa dugg ñu ne la acca saxaj te loolu la ñu gisul fuñ ko wékk waa Kaolack nag nañu xoolaat mbir mi vraiment ñu ngi invité population yi ñun amicale des amis du port nekkuñu fi pour Samba nekkuñu fi pour Demba li ñuy wax ni amul caractère politique dafa doon caractère boo xam ne saa lii les populations de Kaolack askanu Kaolack moom moo leen moom la ñuy dund si naqar ak tiis bu ñu leen teg te kenn tegu leen ko ay ñoo xam ne ñun xamuñu autorité lañ xamuñu lan lañ mais ñi koy joxe sax boo nekkan la ñu ne du man maa ngi doog a ñëw wala ñi fi nekkoon démb ak barki dem ñoom ñëpp la kii doog a ñëw war na mun a xam lan moo xew lan la lan lan la fekk si kii dem war na mun a wax lan la fi bàyyi kon nag mbir mi bu ñu buggee ne muut di def li ñuy def ñun ñu noppi ñun itam waa ji ma ne euh, li ñu naan bukki bu yebee waxeen mbaa nee ma si si si doxin bala bu ñu nee nemm danañ gën a dagg fii di ngeen fi buggee jàll mu teleen tali yaa ngi nii xat amul benn bés bu fii dul am embouteillage boobu bu jógee fii midi par nga balaa ngaa dugg Kaolack deux heures xalaatuñu yokk tali yi yéen seen quartier bi amul fenn foo xam ne oto mun na faa dugg yéen jeunes yi laay waxal yéen yéen a am dund si kanam ñun pare nañ ñu ngi leen di wax ñu ngeen te ñu ngi wax wa quartier yi ñu te na ngeen xam ne lii ñuy wax nii seen njëriñ la tey seen njëriñ la ëllëg maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne yéen waa Kaolack mbir maa ngi noonu seen kaw man Ablaye Madone maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm nag presse bi parce que yéen ay jàmbaar ngeen ku leen bëgg a dëkkale fu ngeen nekkul bu leen leen faale li ngeen di def mooy intérêt réew mi mooy intérêt askanu Kaolack mooy yéen seen intérêt parce que nag da ngeen volontaire di def li lu nekk di ngeen ko dégg mais na ngeen xam ne vous vous avez une mission très noble waaw noblesse nag du ku nekk ko mun a am yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na jàppale yàlla jàppale Kaolack yéen waa Darou Salam li ngeen di dund yàlla na ko yàlla teggi. Euh, mais lii jarul waxtaan ak kenn gis